شيخي محمد الفللو موي فالفلا تكو كورنيخ مو فلا ناي فلا كي موي سايب الكمالا أول فرداي لهم عربي لازم كلهم فمهم خمني كي موي سايب الفلالا ممرا من بولم نفيارم توالو كوني سودان بيدان فورنا لاشنا لك مامم شريف لا شريفون bun sharifan sharifan tuuma jëb loola alaaji Fall Mbàkke du tas yaakaar sëriñ Murtala fallilo sa baay du tas yaakaar sëriñ Murtala fallilo sëriñ Murtala fallilo sëriñ Murtala fallilo du tas yaakaar sëriñ Murtala fallilo ساقال دلو خوالات كل نمي لغا جيجل فالخميلة أنا محمد نال مختار مالك ويا شيخنا الفللو يا مم يفي مي مجرا لولا قسيا باكي خي ولي والوالي كون بون اتا ننجل واي خي ولي والوالي كون بون اتا ننجل واي شيخنا الفللو فضل حسيم شريف فارس فتل مبكن مصابلة كما نجت ما يوصلك لرد يمنا خبالي بابان لرد يمنا لرد يمنا خبالي بابان لرد يمنا لرد يمنا خبالي بابان Cheikh Badam ku sopp Cheikh Fall Mbacke ku sopp Cheikh Fall Mbacke xewal na war la lor de la day la mën a daa Cheikh Fall fii xëy la mën a daa kon fi xam na noo la sax borom ngor ga gaaw ko def ndey ko joo waalu diwaan ya seen mbooloo ma xam na noo la bay ci wilaayati yaa yor fond mag boo wer shérif nga yaa jiite mboolem ku ne yu la gaal gaa ngi ni taar ku nak ya rek ya xalaayat ku duggaalug bi Cheikh Fall Mbacké àggale la buur leen ti weq ta dew a dew ndax ga na legi mo daw dara mi la fa falane habli safinatan bi kunil janna min daaratin man yaasal min sih Cheikh Bachir Mbacké nga fa taxaw dunu ne sëriñ Basiru sering Basiru Fatima Sering basiro Sering basiro Fatima Adama Sering basiro Nga bata khadrunak Fek murenya wal dafajak Syekh Mustafa Syekh Mustafa Syekh Mustafa basiro Nga fanakh mooy defal di bégal mur ya fa ne man ak sama la ka akhir, yal na ma dali ma way man aka saa samp maa yal nag ma dolli may a xéewal ndax ma mën a way man aka saa maa yal nag ma dolli may a xéewal ndax ma mën way fu la julee salaatu nasri himbe safinatan bel nasri bum seen male la tabbi gaal ga jëm di sama ndaay ab jant mbaa weeru badar gaal ga di daw machine ab di sabal subhaano bambay borom mi laxwa subhaana man fil bari wal baari ma adral jawaariya wa kullal jamaa subhaana man li jaara fi safina fi xidmati li saahibil madina subhaana man yurji fi naari alayla wala saar fi lijraari keroog la Seex Bamba fanaani Ndar géej du sa jëla ñoo ci danam Bambay géej ila nabi ndari maa xat ka faanal ñu daa kel kadri Seex Bamba nee na ba mu néeg baraab ndar la ko boromam daa di wax la muy nar fasbir kama sabara awul lasmi lañ xaata bante bambayi mbër mi mu daal di jaari kër aman xuraysin ngir lam càllala te ñun xuraysin Bamba julli na fa ñaar rakka ma ngërëmal njool maka keroog ba muy